lépp dafa am yoon moo waral ñu ñu maandu ñu xaw a maandu ñun ñi war a jël décision yi euh, gën a tënku ci li nga xam ne scientifique yi ñu ñu koy ñu ñu koy en tout cas xelal euh, tey mënoon nañ jël ay conclusion parce que comme ni ma ko waxee liggéey bi ma laajoon ñu def ko ci ci te gouverneur jiite ko euh, xalaat yi yëpp génn nañ te conclusion yëpp foofu ak orientation yi moom lañ fi wone te li ñu doon xaar justement mooy ci orientation yi bu dee am population wala bu dee am na service wala projet boo xam ne gis nga ci loo xam ne mën na laa gàllankoor nga wax ko pour ñu mën ko cee verser euh, seetlu nañ ne waxtaan bi gënul demee loolu moo waral tey ñu ñu jël ay directeurs yoo xam ne euh, ñi ñu fi en tout cas ñi ma ci xam koo ci gis professeur d'université la ci wàllam maanaam ay borom xam-xam lañu du wàllu du question seulement ay directeurs lañu ci suñu structure ñu ne leen ca lañ fi wax yëpp ak liggéey bi ñu fa def ngeen tënkal ñu ko génnal ñu li ñu naan euh, li ñu war a def sama naataango euh, wax euh, justement nañ ñu génnal li ñu war a def léegi léegi léegi parce que dafa jàmp parce que dafa am lu ñu war a faj lan la ñu war a def itam peut-être loo xam ne c'est beaucoup plus structurant maanaam dafa laaj étude yu gën a gudd mais itam dafa laaj liggéey bu gën a gudd ñu xayma ñu loolu pour que ñu jébbal président de la république li ñu war a def ci piste te yi ngeen fi dégg da ngeen comprendre ay entité yu bëri dañuy agir ci Lac Rose parce que askan bi ci boppam maa ngi tooñ ñeen ñi euh, ñu bëri ca ñe la ñu am ci boor yooyu état jaayu leen ko de ña fa dëkk ñoo leen ko jaay du dëgg kon sëñ bi souvent yooyu aussi dañ koy ciy bàyyi xel pour que ñu xam ni entité yi dafa bëri boo xoolee euh, yi ci yi ci yi ci yi ci en tout cas yi ciy liggéey entité yooyu ñu ci bëre duggal nañ xaalis bu takku ci wàllu étude maanaam pour xam lan la ñu war a def loolu la ñu bëgg nag loolu lépp ñu boole ko parce que état bi benn la ñu boole loolu lépp pour justement eh, eh, jox ñu ay solution yoo xam ne bu ñu ko defee tey maanaam saafara yi warul jur ëllëg ay jàngoro te loolu nag jafe na ci wàllu dëkkuwaay environnement ci wàllu dex géej et cetera jafe na gis ngeen euh, saafara inondation Saint-Louis moo ñu yóbbe woon ba ñu am problème bël ba ñu fa am te gis ngeen li mu jur kon moo waral tey ñuy xaw a maandu ca la ñuy def gën a jox euh, euh, en tout cas àq ak yelleef borom xam-xam yi ci wàllu woowu pour que euh, ñu bañ a en tout cas juum juumte nag ak mbindee fa ànd waaye nag bëgg nañ fexe ba ñu moytu ko.